asalaamaaleykum mbokk yi teel a gaaw juróom-ñetti fan ci jumaadal ula muy weeru rakkaati gàmm ci atum junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ci gàddaa yonente bi salallahu alayhi wa sallam ñetti fan ci weeru décembre ci atum ñaari junni ak ñaar fukk ñaar juróom-ñetti fan bokkul ci lim yi fàttali lim bu rafet la kon tey ci gaaw bi rafet na li ñu ci gën a taamu mooy ku ca watu li ñu ciy tere tere wàccandiku moom gaawu mooy ku ca sangu wala ku ca fóot ñaanu bis bi yow yàlla maa ngi musloo sa ngërëm ci saw mer di musloo sa jàmm ci sa mbugal allahumma inni audu bi ridaaka min saxatik wa bi muaafaatika min uqubatik allahumma inni audu bi min saxatik xadiisu bis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee ki dugg ci lislaam ñu wër sa gëléef ko ak fegu ak doylu ci la ko yàlla jox kooku texe na xadis bi muslim nettali na ko qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam qad aflaxa man aslama wa ruziqa kafaafa wa qannaahu llahu bima ataah rawahu muslim waxtu julli yi suba waxtoom dana tàbbi juróomi waxtu yu tegal juróom fukki simili juróom ñett tisbaar benn waxtu bu tegal ñaar fukki simili ak ñett takkusaan ñeenti waxtu yu tegal ñaar fukki simili ak ñett timis juróom benn waxtu yu tegal ñeent fukki simili gee juróom ñaari waxtu yu tegal juróom ak benn loolu mooy waxtu julli ci Touba li ko wër bu fekkee ne ko Touba soo ko féetee penku ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre yu ne wàññil benn simili soo ko féetee sowwu ñaar fukk ak juróom-ñaari kilomètre yu yokkal benn simili soo ko féetee gànnaar wala Saalum téeméeri yokkal benn simili jant bi dina fenk juróom-ñaari waxtu yu tegal fukki simili ak ñaar di so juróom benn waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom benn yàlla na nu yàlla nangul te nangul leen amina